Wow, le festival que nous avons organisé, l'objectif c'est de promouvoir nos produits locaux et aider les femmes à pouvoir sortir nos produits locaux, hein, préparer les produits locaux et montrer à la population, à la population que les produits locaux, on, nous pouvons préparer beaucoup de mets et aider les femmes à valoriser nos produits, à pouvoir vendre les produits. Vendre les produits, c'est quoi? Les femmes sont vraiment, euh, les frais, on, on, les finance, on les forme, mais ils n'arrivent pas à vendre. C'est l'écoulement, ils ont un problème d'écoulement. C'est la boutique 221 du ministère du Commerce de Gagne 2000 qui est venue nous accompagner par rapport à la vente des produits pour que les femmes puissent euh, écouler les produits rapidement. Ils vont leur ouvrir des boutiques en ligne et pour que les femmes puissent écouler les produits rapidement. li ñuy li may wax encore je vais me parler en wolof les femmes qui sont là c'est des battantes man lu tax ma jóg je suis une femme de développement et j'aime accompagner les femmes de développement pourquoi may accompagner femmes de développement ñi ngi toog ci seen rox di liggéey kenn wanewu leen ma ñëw ne leen génn ci leen ñu wane leen te du Dakar rek Sénégal yépp la ku nekk jóge nga dëkk bu nekk ñëw moo tax ñu le festival des arts culinaires du Sénégal ku nekk ba ngay ñëw indi nga li ngay mën a togg wan ñu ko wane ko sur la table ne lii nii dugub bi mën nañ ko togg ceeb ñu jël suñu mboq bi ne mën nañ ko togg lii ñii jël lu nekk daal euh, mélangé nañ ko defar nañ ko te yaakaar naa ne dañu nekk les produits c'est la la la cherté de la ville non non non cherté de la vie amul xam nga tax amul mooy ñun am nañ suñu produit yoo xam ne war nañ ko mën a consommer war nañ ko mën a consommer war nañ ko mën a transformer lekk ko wan ko suñu doom yi wan ko suñu bopp ba pare day am wérgu yaram man daal sama objectif mooy lancer un appel le président de la république l'a déjà dit te balaa président de la république di ko wax man taxaw woon naa si amoon nag ñu ma jàppale amoon ñu ma taxaw nag ba ma jógee taxaw si dem fenn wax ko fa les gens sont venus vers moi ne ma ñëwal ñu jàppale la ñëwal ñu def lii te tey jii kontaan naa kontaan boo xam ni ko yaakaar yaakaaraw ma woon mu demee nii mhm. en particulier sama ministre ministre de la culture et du patrimoine historique souvent euh, dañuy wax ni femme euh, transformatrice yi dañuy defar ba pare mais problème bi problème packaging lay am problème emballage loolu moo tax peut euh, wu ci côté à l'échelle internationale ngeen war lu ñu war a def mooy lan ñun suñu bopp ñu gëm suñu bopp gëm suñu bopp jéem a defar loo xam ne ko ñun mën nañu emballer suñu bopp parce que lu tax ñuy jënd loo xam ni ko c'est dañ koy jëlee ay fi ñu koy jëlee war nañu mën a ñun defaral suñu bopp. am nañu papier boo xam ne mën nañ ko defar ñu defar suñu sachet yi defar leneen parce que bu ñu ko gisee suñu femme yaa ngi fi suñu góor ñaa ngi fi usine yaa ngi fi ku si nekk war nga mën a fabriquer loo xam ne que ñun war nañ ko mën a def problème bi mooy le franc qu'il parle le le franc qu'on nous parle comme ça pour le ministère de la de du commerce. les femmes balaa ñu koy am dinañ sonn xam nga tax ñuy sonn mooy il faut payer chaque produit il faut payer vingt neuf mille pour avoir le franc mooy franc bi ak code barre bi te bu defee un an war nga delluwaat fayaat ñu xoolaat ba xam est-ce que ni nga ko defaree baaxaat na pour nga pour nga mën a jaay ñoom nag ñu ngi jaay sans le franc parce que dañuy dem euh, de porte à porte jaay pour mën a jaay dans les grandes boutiques il faut nga am fra bi pour nga am le code barre pour mën a génne produit bu nga am franc pour nga am code barre bi une femme qui transforme cinq produits ou sept produits produit bu nekk bu si waree def vingt neuf mille par par par produit dina métti si moom. moo tax daal euh, bëggoon nañ ñu gën leen ko bu ñu leen ko may ñu may leen ko buñ leen koy fayloo benn yoon ñu fayloo ko fenn fayloo benn yoon baaxul. parce que lu tax mooy pendant un an mën nga produire benn ñu may la fra nga demaat ba si digg bi ñu ñëw xoolaat fi nga doon liggéeyee est-ce que niñ ko defee noonu la wala du noonu bu fekkee ne du noonu da nga war a yokkaat ñu ne la ah fii de salte na lii de def na nii donc su laatee am naa frappe li nu ma neex ma liggéey donc ministère du commerce day ñëw mu xoolaat saytuwaat xool ba xam ndax yow fi nga liggéeyee ndax niñ ko fekkee woon noonu la mel ba déet wala est-ce que mesure yi ñu la waxoon yaa ngi continuer def. waaw ñu ngi des cherté dund bi wax nga ko léegi lépp cher diwlin ceeb sénégalais bëgg nañ consommer local. Mhm. mais souvent dañuy am problème ci li ñuy wax ay par exemple riz local bi riz pâté ñu si gis ay mbir yoo xamante ne day tax sénégalais duñ ko mën a consommer seen pàcc lan ngeen ko war def euh, ngir daal di gën a defaraat ceeb bi ndax ñi mën ko consommer. waaw dégg naa ko le consom euh, le euh, président du consommateur wax na léegi ne que suñu bu mbay bi moo gën a cher suñu ceebu ceebu mbay moo gën a cher importé bi. parce que lu tax mu gën a cher importé bi nit ñi xëy na xamaguñ ko togg bi ñu ne boo ko toggee euh, ceeb bi boo ko lekkee tànk lekkaloo ko si tàngaay bi ceeb bi du neex mais ñun ñoo ko tàmmalul suñu bopp. man yaakaar na ñun ñoo tàmbalul ceeb bi suñu bopp ceeb bi boo ko xasee ba tàmm ba lekk ko ça tu digères mieux et plus la santé li ñuy indil est-ce que ñun xam nañ ko xamuñu ceeb bi ñuy indi lan la commencé nañ ko commencé di ko lekk mën nañu ko bàyyi mais ñun ñoo war a yar suñu bopp ñun ñoo war a xool suñu bopp nan la ñuy consommer nan la ñuy lekkee nan la ñuy jëlee lii quoi tout le temps rek ñu ne tant boo indee ñaari produit di ko jaay ñu ne la bii Sénégal moo ko defar bii Chine la jóge bi nekk Chine ngay jënd pourquoi ngay jënd boobu parce que bii xëy na xamuloo nu ñu koy wala nu ñu koy toggee ñun ñoo si war a jàpp na war si taxaw wala taxaw femmes yi ne leen ñun ñoo leen ñu def lii ñoo leen ñu xàccandoo dóorandoo man daal man si sama xalaat bu gàtt euh, femme yi ñun ñoo war a lëkkandoo jàppandoo parce que ñoo nekk si waañ bi. ñu ñoo war a xam ni ñuy wàññee lekk bi ñu ñoo war a xam ñu bàyyi lële jël lële. d'accord euh, on est à 67 participants parce que lu tax mooy am na ñoo xam ñoom ñëpp bokkuñu song ba jëluñu benn benn song. dafay am ñaar ñoo xam ne bokk stand donc avec 37 avec 35 stand stand bu nekk ñaari nit bokk bokk ko donc ça fait ça fait plus de nekk na jóge dëkk bu nekk ñëw incha allah. Euh, alors boutique 221 c'est euh, un centre commercial virtuel. Donc en fait, c'est un espace où chaque marchand peut avoir sa boutique dédiée où il pourra retrouver ses produits qu'il peut vendre via euh, ses pages sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, avec euh, les livraisons que nous gérons au niveau national, ainsi que les paiements qui sont gérés par la plateforme Orbus Paiement de Gainé 2000 pour euh, un peu sécuriser le marchand. Donc aujourd'hui, un marchand qui ouvre une boutique sur notre euh, plateforme, il a on l'accompagne déjà dans le support client, parce que le client, quand il passe commande, nous sommes ses interlocuteurs. Donc c'est lui, c'est nous qui allons lui apporter toutes les informations nécessaires pour passer la commande. Et une fois qu'il valide sa commande, nous allons l'accompagner pour faire le paiement en ligne. Et ensuite, il choisit son livreur également qui, euh, qui va gérer la livraison au niveau national. Euh, Exactement, tout à fait. Nous, nous ciblons vraiment particulièrement ceux qui sont dans les marchés et les petites et les femmes transformatrices justement qui n'ont pas les moyens d'avoir pour euh, vendre leurs produits. Boutique 221. <laughs> Alors, boutique 221 su ma ko waroon euh, tënk ci wolof benn genre benn jumtukaayu xarala la bu nekk ci internet bu nga xamante ne euh, marchand bu nekk da ciy am boutique comme marché mais sauf que marché bi ci internet bi lay nekk léegi ci biir boutique bi dina am possibilité wane ay produit am te buy wane produit am da koy photo dugal ko ci biir compte def prix am def description tagg produit bi ba nga xamante ne client bu ko gisee dina ko bëgg jënd bu ko defee client bu ko bu amee client bu bu bëggee jënd ñun ñooy gérer livraison bi ak paiement en ligne léegi nag euh, boutique 221 initiative au ministère du commerce la mi Gaïndé 2000 mooy assurer exploitation bi maanaam tout ce qui est lépp luy ànd ak euh, gestion technique wala opérationalisation équipe support ak yooyu gaynde 2000 moo ñu ci accompagner donc man ak ñoom lay gën a liggéeyee. boutique boobu daal dafa taxaw exactement exactement parce que boutique boobu bi ñu ko doon créer ci jamonoy Covid la woon et dañu doon xalaat ba xam euh, marché yi dañuy tëj ou pas. et l'idée c'était d'avoir une te li ñu bëggoon mooy marchand yi nekk ci biir euh, marché yi ñu mën a continuer du jaay même bu fekkee ni seen marché yi dañu tëj lool moo tax lool moo indi boutique 221 donc vraiment commerçant yu ndaw yi lañ ko jagleeloon ak femmes transformatrices yi nga xamante ne dañuy defar seen produit te du mën a génn zone bi ñu dëkk daal donc loolu moo ñu ci taxoon a jóg mën nga dolli say assaisonnement mu gën a neex gën a saf moom itam dangay dolli ndox rek bàyyi mu reposé wu après nga lakk amsa sa akara dañu seetlu nag ne ñu bari bu ñuy defar bi ñu dugub wala akara dañuy échoué ñu xam quantité doo bii nan lañ ko war a yëngalee et tout cela mode utilisation bi et tout mi ngi nii si ginnaaw ñu defal leen ko prêt à être utilisé yomb neex et tout indi nañ leen tamit beñee euh, puf puf mooy beñee ñi suy suukar moom tamit ndox rek ngay yokk bu fekkente ne ni dafa bari si yow mën nga daj def li la neex li ci des nga daal di lem dencaat ba beneen yoon incha allah.